Cheikh Tidiane Gomis Cheikh Tidiane Gomis ñu waxtaanee ci manque de transparence ak euh, ni ñu respecté ko li nga xamante ne mooy règle de jeu yi nii ñaari frein yoo xamante ne day yàq li di sport ci biir Sénégal waaw xam nga xam nga xam nga euh, fu mu nekk euh, lan moo gàllankoor maanaam sport u Sénégal il faut que ñu teg ci baaraam wax ko parce que li ñuy wax ni yëpp defe naa ne nit ci wax nañ ko mais nit ci duñu changé euh, dafa am ñaari élément ñaari ñaari yëf yoo xam ne mooy transparence ci côté finance ci sport ak respecter les règles du jeu règles yi règles yi ñu teg ñu respect parce que loolu parce que loolu bu amul règles yi bu ñu ko respecté wul mënuloo fexe ba nga xam ne lépp day jaar yoon ci wàllu sport donc ce qui veut dire aujourd'hui lenn gis nga tey jii gis nga tey jii bu ñu changé woo euh, texte yi texte yi parce que loolu moom mooy loolu moom mooy gën a am solo ci sport Sénégal yàgg nga koo wax daal sport Sénégal li mu gën a soxla fu mu nekk nii. Mm. du lii ak lii ak lii euh, mooy texte yi même buñ ko changé woon tamit. Mm-hmm. te maanaam mécanisme bi mécanisme de financement bi. Mm-hmm. mécanisme de financement bi. ak règle yi ñu teg respecté wuñu ko xoolal dara du dox mën naa la wax ne dara du dox parce que euh, loo gis dañuy naan euh, lii xaalis il faut que nit yi dem ci beneen dimension mooy maanaam da ngay toog yow xaalis bi ngay utiliser du xaalisu Seydina Omar Ba du xaalisu Moustapha Diop du xaalisu xaalisu ñëpp la mbooloo la c'est la population c'est l'argent du contribuable moom la ñu jël teg ko ne leen am leen def leen lii waaw mais am na am na loo xam ne xaalis xaalisu askan wi. buñ la ko joxee ngir yàlla lenn moo am. mais boo demee ba utiliser ko bu pare ñoo rendre compte kii bi population. waaw yaa ngi wax ci mbirum xaalis sport. 7 milliards yi nga xamante ne. tuuti loolu laa xam nga nga xam nga loolu laay wax. ci loolu laa bëgg. kon loolu la jógee maanaam dañu manqué. non mais amul transparence maanaam bilan amul maanaam voilà mooy mooy def bilan maanaam. Mm. yow boo jëlee boo demee maanaam boo jëlee bu la bu xaalis compétition ñooy international mm. nga taxaw ba saa nga ne eh xaalis bi temps la mm-hmm. xaalis bi temps kii eh, judo mm-hmm. lii lañ ko jox basket lii la ci am mm-hmm. kii lii la ci am ba pare expliquer ñoom parce que tey jii. le problème qui se pose bi ministre bi waxee sept milliards yi mais am na loo xam ne dafa am. man man dama toog ba sax man ma ne waa mais non kon léegi nag depuis depuis avril ba léegi da ngay jël avril ba léegi am na ci ay discipline yoo xam ne demuñu compétition demuñu parce que nag demuñu parce que bu ñu demee ministère d'âge bi mu ngi may dégg d'âge bi da di wax ne eh fii dara nekku fi. c'est grave. non noonu di jël. bi je pense ki waroon kii sax moom it dem. ah bi. waaw ki waroon dem représenté. mais doo dégg lu ma la dangay ngay ñëw. waaw da ngay ñëw ba ñoom ñu amul dara fi nekk. kon ñu gars yi fois non mais laa lay dama ne la parce que li fi nekkoon. li fi nekkoon moo fi nekkatul waa léegi nag. loolu ñoom bi ñuy loolu bi ñu koy utiliser mënoon nañu ñëw toog ak ak askan wi ne leen écoutez ou bien ay point de presse relais bi moom mooy la presse wax la presse ne leen atelier mu ngi nii on a on a on avait kii euh, euh, compétition lii la am na ci sama benn euh, naataango euh, benn journaliste euh, je suis désolé de le dire waaye euh, bon quand man ma toog ba saa man ma dégg ba saa moom mu ne Euh, kiw compétition nu euh, ñu koy sax euh, budget compétition musul toll sept milliards. si. non mais c'est c'est man démb def man ko gis mu wax ko. ma wax ko waxul dëgg. ah wax <laughs> ko woo man dama ko woo waaw waaw. man ko xanaa léegi man man man man waa léegi gi nga man ban Sénégal laa nekk kon man. xanaa dafa am beneen Sénégal. 7 milliards 900 je xam naa exactement ki ngay wax parce que j'ai j'ai reçu le même euh, un message bu mu envoyé ci benn groupe WhatsApp bu presse sportive bi pour wax leen loolu. je lui ma ne ko xoolal xam nga lal la gis nga nit dans la vie. Mm-hmm. Mm-hmm. da ngay wax li nga xam ne moo am. Mm. man d'accord li nga wax. mun ne ma ni dikkee ba ne ko eh d'accord ak yow li nga wax li nga wax xam da dangay wax li ñu leen sant. mooy xam lan la wax mooy loolu anamu parce que musul am lu leer dama ne man bo boog depuis bi ma nekkee journaliste sportif fii nekk ko Sénégal mësuma gis déglu fu baaxu lu ma la te li ma la wax ni def naa combien de CAN ak combien de coupe d' waaw coupe d' Afrique. Hmm. wax coupe du monde mësu ñoo dem ñëw def bilan. nañ ma ko wax Cheikh Tidiane naa la ci dollil benn affaire xam nga. dégg naa ak gis naa dafa bokkul. ministre des sports dafa toog fii keroog. mu wax ne euh, wax ci 7 milliards yooyu diñ ko dépensé et mais comme temps bi dafa gàtt mënu ko woon détaillé. boo déggee ci biir waxam nee na ma soo bëggee ma jox la documents yi yooyu am. Cheikh Dia documents yi mi ngi sama bureau bii ma teg sama bureau. sàcc gi gars yi sàcc xaalis sport bi ministre waxu ko. c'est extraordinaire mais libération moo ko détaillé moo taxoon keroog dama koy denc. parce que parce que parce que Cheikh Mbacke xam nga qu'est-ce qu'il a fait. Euh. après l'émission il m'a appelé man personnellement. Mhm. Cheikh Mbacke c'est un journaliste nag. il travaille sur les faits il m'a appelé personnellement. ne ma dama seetaan ngay wax ak ministre affaires yooyu qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui s'est émission bi kañ la woon je lui explique ce qui s'est passé mm-hmm. est-ce documents soo ko bëggee les gens du ministère ils peuvent te il a il a pris les documents il a travaillé sur ça les mêmes documents yi génn libération mi ngi sama bureau bii ma teg ok dama ne la gars dañu sàcc alal ba mu ba ba lu jéggi dayoo laa la wax tu n'imagines même pas qu'ils ont fait ces gens là maa ko wax ay sàcc lañu Seydina naa la jox euh, Cheikh Diane sa rubrique la une minute nga la wax benn affaire ministère des sports ministère de la jeunesse xam nga moom lañ boole léegi at bii ñu génn. Seydina déglu baax li ma la wax. Mhm. ils ont donné millions à la presse sénégalaise. millions de francs ah. CFA à la presse sénégalaise. amu ci un franc nag dugg Walfadjri. Hmm. et ces gens là veulent nous. donc euh, c'est vrai ah. non non non xam nga. bu ñu taxawoo ñu taxawoo parce que may wax ni j'ai les documents bu ñu bëggee boo bëggee léegi bu ñu yéegee ma jox la. dégg nga xam nga xam nga. c'est vrai parce que góobis balaa ngaa jógee par rapport ak 7 milliards yooyu rek pour jàppale la parce que boo xoolee libération lim bi dafa ne 580 530 millions lañ ci man lañ ci justifié. waaw. maanaam 7 milliards. waaw 530 millions lañ ci justifié. waaw léegi 7 milliards ak lu teg lépp amul si mais doo dégg euh, waaw Moussa Ba. mais Seydina da ngay Seydina boo xoolee les du ministère. waay dañ naan la ni Cheikh Tidiane Gomis di waxee nii dañ naan la compétition sangam. taekwondo judo nangam ak nangam lii lañ ci prévoir lii moo waroon jar billet d'avion yi lii moo waroon a jar euh, prime yi lii mooy frais d'hôtel lii mooy nangam lii mooy nangam lii mooy nangam lii lañ ci dépensé lii justifié wuñ ko waaw mais c'est que waaw. loolu mooy li am waa léegi mais nag mu toll 7 milliards encore. waa léegi ma non mais attends attends justifié euh, moo bi mu utilisé justifié loolu ñu bind noonu kenn justifié wu ko mais ñoom mënoon nañu def bu fekkoon ne dañ euh, euh, maanaam dañu bëggoon du leer mënoon nañ ko justifier avant lii. oui. exactement jeex na exactement gis nga man loolu laa yàgg di wax damay toog fii ci plateau di koy wax nit yi defe ne kii eh, kii de ab dof la mu ngay waxati te <laughs> fekkoo le mooy li ma leen di wax non sincèrement parce que il faut que affaire bi lenn la nee naa la jóge nañ fi Coupe d'Afrique ba ñëw déggoo Coupe du bi ñu def Qatar lan la fi Yankhoba Diattara euh, wa waa wax damay def bilan ana bilan bi ana bilan bi wax fa kii bi parce que li ñu yóbbu woon quatorze millions yi quatorze milliards yi dañoo utiliser sept yi nee nañ dañu utiliser set yi sept yi delloowaat nañ ko ana delloo bi delloo bi fan gis nga. li Assane Mesere wax laa gëm de. Oh. Macky Sall ku bilan bu dàq la. <laughs> bu la waaw ah. parce que li Cheikh Tidiane wax nii. mais Assane Masseer da ko wax di reetaan mais loolooy dëgg te c'est ce que di tey su fekkoon ne euh, euh, ah, euh, xaw ma kan ministère yi fa yi fa toppante. Mame Mbaye ñaar dafay jóge kaka remplace ñëw def bilan. Yankhoba Diattara ñëw def bilan. mais su ndaw si su ñëwee du soxla def lii lépp. moom laa lay wax. parce que moom ñoom bu ñu defoon bilan ba nit ci xam. xaalis bi dugg na fii jox nañu maam Khady jox nañ ko 5 millions. 5 millions yi lii la ko utilisé lii la woon lii la woon kon doo gis kenn di wax. mais malheureusement on ne parle pas ah, malheureusement on ne parle pas damay rappelé wu benn fait benn loo xam ne dama cee tombé ak ay yàgg gis nga 2002 Coupe d'Afrique 2002 à ko euh, dama ñëw euh, fekk ñoom dem si yàlla bay doy ñoom dem si yàlla voilà kii euh, Eh, El Hadj Malick Sy Souris. dégg nga ñoom ñu toog ak ñoom in Oscar Diagne mu ngi dund. Oscar voilà ñoom ñu ngi voilà euh, kii euh, yow sa kii bi sa mbokk Louga bi euh, Boubacar Gaye moo nekkoon président commission finance ñoom ñëpp ñu toog ministre bi d'alors mu toog man nag ñoom seet ñoom seetluwuñu parce que dama ñëwoon. pour <laughs> seet si mbay Ndoye ah. dem si yàlla Mbaye Ndoye président douane woon. voilà man ma toog nii à à mm-hmm. l'écart mais am na lu ñu fa wax ma wax ko gëléem bi gëléem bi ñu bi oo jëndoon <laughs> gëléem bi ñu jee jëndoon pour comme ça maanaam pour affaire ay xon waaw <laughs> mais non mais attends mm. mais après bi ñu ko facturé man bi ma toogee di koy dégg loo moo tax nga man bi ma ñëwee première chose bi ma ñëw xam lu ma demandé ñaata lañ jëndoon gëléem bi loolu laa bëggoon xam ñaata lañ ko jëndee woon parce que man li ma ciy dégg gisuma kii ma xaw ma ndax loolu moo nekk nag yu waxam ñoom seen kii bi seen bilan bi xaw ma moo nekk ci loolu li ma ci man gëléem ba. mais xooy waaw bokk ci bilan. te mën ko gis waa ji gëléem dëgg dëgg dëgg dëgg. gëléem boobu. Mm. jarul 500000. dëgg dëgg waaw. Eh, passé wu li ma dégg. loolu moo tax loolu laay wax dama ne il faut que gars yi. ñuy jël di indi bilan di lay naan xolal ñun daal lii la ñu yóbbu lii la ñu def amul am na fi benn ministre boo xam ne dem na fi ñëw na fi mais man bi ma laajtee ay gëstu nee nañu euh, euh, maanaam xaalis bi yëpp kenn gisul te équipe bi toog te équipe bi demul ba final. mais comme aussi dafa am lu ma du ñu euh, dem ci sëriñ si ñu leen defal facture. waaw. te ministre bu mu ñëwee 740 francs la fekk. mu mu 700 740 francs 744 francs. maanaam 700 am na am na mooy téeméer ak ñeent fukki dërëm. am na boo xam ne ci 7 milliards ah. am na boo xam ne euh, malheureusement dama ñëw tey rek dugg fii bu yéeguma ci kaw. mais mais am na boo xam ne euh, xam la bi ñu defee bilan ba pare. cara hmm. 148000 euh, la fa gars yi bàyyi. waaw non kooku mooy kii bi mooy affaire billet. waaw affaire billet d'avion ak famille. moo gars yi dañuy nit. 40 millions lañ fa def. léegi 148 mille moo fa des. ci ci ci secteur boo xam ne moo gën a tuuti. <laughs> ils <laughs> gën a tuuti xoolal. léeg bon moo gën a tuuti. maanaam li mu doon am ci. ci budget bi moo gën a tuuti. yow as tuut boobu. te gis nga xool gis nga loolu c'est pas gis nga il faut que ñu. et pourtant Cheikh Tidiane yow loolu boo boo jàngatee eh, xam nga Cheikh Tidiane mi nga am bi dafa tuuti. mais su fekkee ni ministre bi nii mu ko waxee. noonu la demee noonu la demee exactement ça veut que s'il y a une bonne gestion. une bonne gestion une gestion transparente. suñu suñu acteurs yi suñu sportif dootuñu jooy. c'est vrai mais mais loolu la ñëpp di wax. nee nañu même sax mais as boobu loolu tuuti noonu. na ñu def équité. na ñëpp am xoolal. na ku nekk am lu mu ci wax am. te lu ko gis si boppam. waaw ku nekk na ci am lu mu wax parce que non c'est que xam nga lan la man fu mu nekk nii man fu mu nekk nii tant que. pourtant yaa ngi koy coow nag. tooy yàgg wax bu ma nee naa la fii dama koy wax ñu naan ma nii dafa bare wax ak dafa def nii ak di may diaboliser parce que lii lii yëpp ma bu jëf yi bëree wax yi bëri ah bu jëf yi bëree wax yi bëri c'est normal que bu ñuy def yow it ngay wax xoolal dama ne bu ñu buggee suñu sport euh, waa développé baax mhm. transparence dafa laaj transparence dafa laaj transparence mënta ñàkk waaw bu amul dara même bu demee ci xon yi ñu jox leen facture ah waaw waaw eh kaay waaw eh dama ne. Qatar eh bi ma jugee Qatar di ñëw. ba ma toog fii ci plateau bi. Mhm. ma wax fii ñëpp ñëpp comment man maa fi wax ba sax man ma ne leen on a dépensé ñaata ci xon du man maa ko wax. fii waaw ah. ma ne leen fii dépensé nañu 500 millions ci xon. 500 ah, millions maa ko wax fii ci plateau bi fii. coow li nekkul. mbaa boobu gañe nañ mbaa boobu gañe wuñ dara. Ah, te te te maam Khady da leer ne bu Cheikh Diar waxee dépendre nañ 500 millions man ngaa waat yow fii nga toog léegi uh-huh. ne 500 millions joxuñu ko benn sëriñ. 500 mille la. 500 eh, millions ko benn ah, sëriñ. 500 ce qu'ils vont mooy mooy rubrique yooyu man man man nekkoon naa ci nawetaan. <laughs> ay rubrique xoo mooy rubrique yi gën a naqaree indi transparence uh-huh. parce que dañ naan noo sëriñ bi lii noo bëggul ku ko wax naaw naaw uh-huh. ci la ñuy pour sàcc xaalis bi et puis rubrique xool sax moo war a jeex ku bëgg a xool wut sa xaalis nga dem xool waaw waaw waaw léegi waaw man bi ma ko waxee bi ma ko waxee jataay moo gi la lendemain ma dégg jataay mu ne noon naa def bilan ana bilan bi du ko def comme ça man ma xool <laughs> cinq cent millions de xon yi ma xool ko parce que il était question ñoom lu ñu déparé woon fii en conseil des ministres moom mi moo indi po euh, kii moom mi moo wax wax gars yi d'accord ci deux cent millions coow li foofu la nekk. ñu d'accord 200 bi daal c'est officiel quoi. waaw 200 millions non non ñu jëlee non ni jëlee sport moo bon. waaw sport li ñu ciy def dañ ciy def ay affaires yoo xam. waaw dégg nga yow da ngay toog gis nga nag loolu am na ci kaw. loolu am na lu ci kaw noonu moo am ci suuf. boo déggee club bi cooki bi xuloo bi di am loolu la. <laughs> dara transparent fédération football fédération nangam fédé dara du transparent du ñu def dara leer. yow boo toogee ak un président de fédération. am na xool la question ki fâche xam nga mooy lan. bu la xaalis. man xaalis bëggul coow waaw. xoolal ah. boo dee wéy euh, bon euh, le budget pour cette année ci ñu ne xoolal bëgguñu question boobu. Ah, xaalis ko wéy bon ok après pare nañ ci. parce que bëgguñu wax koppar bi fi mu jaar. non ñii. non c'est non. mais lan lañu war a. pour yëpp pour l'histoire ancienne tout ça. lan yan kii lañ war a nekk ci gestionnaire yi tout ça. ban gestionnaire am na ci ñoo xam ne euh, man damay gis fédération bu nekk bu defee AG fal ay auditeurs. ah man auditeurs yooyu. tappale rek auditeurs ay tappale lañu. parce que man li may gis ak li may dégg nii li may gis te ñu ngi koy wan nii bu leer ma xam ne lii càcc la. waaw léegi loolu ñoom. Ah, man man man de li ma li ma gëm. mooy les corps de contrôle là euh, leen yebal ci yooyu rek fédération ñu koy def régulièrement léegi non parce que loolu ci ma dégg Cheikh wax nga ko mm-hmm. su fekkee ne ñi nga xam ne ñoom lañ chargé ñu ñu appliquer textes yi amuñu ful lay appliquer ko wala ñu nekk ci benn laxisme parce que laxisme Sénégal sport li ko gën a waral mooy mm-hmm. cette équipe nationale qui est la vitrine du sport on pense que su doxee lépp dox na alors que c'est pas vrai l'équipe nationale ça fait l'affaire des politiques parce que tant que ñi ngi gagné kenn du coow kenn du wax xaalis kenn du wax loolu mooy dëgg ah, équipe nationale A ñoom foofu la xaar match yeeg coupe d'Afrique yeeg coupe du monde yeeg nangam am na ci ñoo xam ne bu Sénégal qualifié coupe d'Afrique hmm. dañuy kontaan dañuy fecc waaw dañuy fecc ñu nga ca fédération ba dañuy fecc hmm, ah boo bokkee ci voyage bi kañ sa affaire sa bamba maase la. boo bokkee ci euh, délégation bi boo ci bokkee sa bamba maase la. mais am na ñu Cheikh Dia doon wax ne bu ñu demee xaw ma Cameroun la woon. xaw ma daawuñu dem sax seen entraînement. li muy hôtel rek la ñuy toog. la ñuy toog Sénégal sax ñu toog ci hôtel ba nekk wala. te bu ñëwee ñu viré leen. doo dégg lu ma la eh seen xaalis dugg na yàgg na. dugg na seen i poche pare nañu. et c'est ça aujourd'hui tey jii dama ne il faut que maanaam ñuy ñoom ñoom seen jëm boobu nañu am jom ñoom bu ñu buggee set bu ñu buggee bisa ñu ne non kii deful dara bu ñu demee tey compétition nañu def seen bilan oui ñëpp toog presse bi yëpp toog mhm. gars yi wax comme sax bu ñu waxee gëléem bi lii lay jar Cheikh Tidiane Gomis bu déggee euh, euh, kooku ñu ci kooku ñu ko jënd. xam-xam yenn maanaa wala. waaw waaw waaw parce que man xam naa gëléem boobu ñaata lay. jar wax fu ko jëndee aussi. waaw waaw too bi waa bi muy ñëw <laughs> waa muy ñëw. boobu ko toog ñu waxaale gëléem bi. Ah, <laughs> waaw ñu waxaale bi kooku nag. non non je suis sérieux ci li may wax. boobu daal du ñu côté yaa ngi ko quoi. waaw waaw c'est après. mbay doy boo toog ba si bi ba gars yi waxaale ba gars yi dem mbay doy dem. ah yaa ngi toog. gis nga woon gis nga woon. billahi gis nga woon. donc il n'est pas parfait. xamul woon. xamul woon ne maa ngi toog. dëgg naa lan lan dëgg naa waxaale bi. waxaale bi wax nii nangam laaj la Oscar Diagne Oscar Diagne nekk na laaj waxaale bi nii ne waa ji ne ni ñu ne noo wàññil. nangam gëléem bi heure bi muy ñëw. nangam tout la yooyu yëpp. allé ko doon doyee ñoom. dañ koy dañ koy. non c'est pour xoola mais li mu wax dañ koy rey wala dañ koy. non dafa am fu ñu koy yóbbu. parce que am na am na gaay bi xoo dem euh, euh, mala buy dund ñu suul ko ah. am na waaw ah, def nañ ko fi. en pagaille mala buy dund ñu suul ko. loolu bu la ko yàlla baalu rek waaye yow. ci politique sax la ëppee. <laughs> te gis na Cheikh ci doy waat mooy. politique la ëppee euh, suñu xoolee le le mouvement associatif. Hmm. waxuma sax nga àgg ci ay fédération de sport ak yooyu. Hmm. mais même nawetaan nawetaan. nawetaan nawetaan xaw ma ba xam mas nga bokk ci club bu nawetaan Cheikh Tidiane. wala kii Seydina gis nga waaw gis nga bu saison bi waaja a tijj. bañ def assemblée général pour fal président ak yooyu. Hmm. mais quartier bi ñëppay ñëw. waaw paa yeeg maire yeeg imam yeeg ñëppay ñëw toog ñëpp toog. Hmm. mais trésorier bi day jël parole. wax wax bilan bi. biteelu ndox sax day wax fu ñu ko jëndee ak ñaata lañ ko jëndee. loolu mooy am lépp non ASC suñ paree doo ko fal président gi dem nga ASC ne ne waaw mais lu tax leen ñoom du ñu inspiré wu ci ASC yi. Mm-hmm. surtout taxaw wax ne xaalis bi lii la lii laa ko dépensé. <laughs> en tout cas dara en tout cas daal lenn li am mooy que si on veut un sport. performant c'est du jamais vu il faut que mu am transparence ci finance ci xaalis bi ak tamit règle du jeu gars yi respecte ko normalement. tout à fait voilà. en tout cas. bien merci Cheikh Tidiane Gomis merci à Moustapha Diop. en grande forme tey Cheikh. merci Seydina Omar Ba férié bi sentir euh, férié bi quoi. merci à toute l'équipe technique <laughs> Bintou Fall Seynalou Keita ci caméra bi Babacar Lo.